Euh, mbirum renégociation contrat yi tamit mu ne am na ñi nga xam ne ni nee ñu mënul nekk mais joxe na jël na engagement ne loolee lu mën a nekk la te dinañ ko renégocier. waaw loolu moom bu ñu ko defee dafay am solo parce que xam mhm. nga li mu wax nii. Mhm. premier ministre Ousmane Sonko ak man ñu wax nañ ko assemblée nationale. Mhm. à l'époque ay député lan mooy treize ministres wax ne contrat yi ni ko joxee baaxul. ba engagement yooyu moom moo ko jëloo ni bis bu ñu gañee dinaa renégocier contrat yi yàlla nekk nag renégocier boo xam ne dana juróom njëriñ Sénégal comme ni mu ko waxee mm-hmm. mais am na loo xamante ni bu demee tey exemple nga bëgg a jël Mauritanie cinquante cinquante fa am mm-hmm. tey Mauritanie mënoo faa ko léegi sa cinquante cinquante yooyu da nga koy dindiwaat mm-hmm. ndax la ñu séq suñu diggante mu ëpp reçu yi yaakaar loolu tamit bu nga koy def il faut ñu xool si yan anam la koy defee ak ñan la nga koy defal ba nga xamante ni Sénégal du si perte mais tamit li nga xam moom la am si ay jàmm ci frontière yeneen dëkk yi duñu ko ñàkk aussi parce que jàmm yi Mauritanie ak Sénégal moo gën Russie bi dox suñu diggante tey kon globalement boo doon juger prestation waaw bu ma ko doon juger prestation pour man damay jox cent pour cent parce que wax naa ko li wax fii yëpp kenn mënut a wax ni bëggut Sénégal parce que lépp intre Sénégal moo si nekk wax na si accord yi wax na si diplomatie bi wax na si maanaam ressource bi wax na si économique bi wax na si problème sécurité bi yaakaar na yooyu yëpp tey ñu ngi ko jënd si di ko xool te li nga xam moom lañ si bëgg a def wax na ko fañ jëm tamit wax nañu ko na Sénégalais yu toog bañ a yàkkamti te di leen observer bàyyi xel bu baax a baax bu ñu bëggee dëng wala ñu bëgg a jum ñu leen waxoo leen woon li lii la li ma si gën a neex mooy sénégalais gi bëggoon a am divu différence entre législatif exécutif gën naa dala xelu sénégalais ci loolu yaakaar naa loolu tamit nouvelle bu neex la pour sénégalais xam ni réew mi ñëpp ñoo ko bokk waxtaan mënul ñàkk te moom pare na pour waxtaan wax na si li nga xamante ni ay kuréel yoo xamante ni tey comme ni mu ko waxee signé na ay décret yoo xamante ni ki nga xamante ni moo topp ci jël deuxième topp ci li nga xam moom mooy moom muy le chef de l'opposition Amadou Ba kuréel googu noonu daf dana fa dem wala mu yónnee fa ki nga xam moo ëpp ay député ci pencu ndaw réew mi dana def ndawam jëmmi assemblée nationale tamit dana def seen ndaw loolu lépp bokk na si maanaam décision yenn yi nga xam moom la ñuy war a jël ci yenn yi nga xam day dem si ressources naturelles yi ñenn ñu nekk mën see gis seen bopp yaakaar naa c'est une très bon chose ak ki nga xamante ni fal na ko envoyé spécial muy Abdoulaye Bathily kooku tamit kontaan nañ si parce que jox na ko loo xamante ni tey fierté sénégalais borom xam-xam la nit lu koo xamante ni xam na foofu yàgg naa dox tànki jàmm ci biti hmm. àndoon naa ak président Abdoulaye Wade léegi xam nañu ko bu baax kooku ñu ngi koy ñaanal mission yi nga xam moom la ko dénk mu nekk si wetam parce que bu ko dee déglu si mag comme mag la hmm. mën naa ba ñu juuma li mu juum du bari parce que nag situation fi mu toll hmm. mën nekk ndaw nga jiite mais da ngay ay mag yoo xamante ni yàlla teral na leen liggéey na réew mi ba ba retraité te soxlawuñu poste encore soxlawuñu alal soxlawuñu tuur parce que am nañ ko nga teg leen sa wet pour ñu lay mën a wax dëgg parce que ndaw bu yor alal ak nguur nag boo amul mag ñu lay conseillé sa njuumte day bari te loolu laa leen di souhaité parce que nag euh, bari na ñoo xamante ñëpp ñi ngi dawut si ñoom parce que leen fa yóbbu rek mooy ay poste wala seen opportunité mais comme ñoom Sénégal moo leen tax a jóg Euh, concentré wu ci Sénégal bañ a concentré ci yenn wax yi parce que wax moom ju bari amul solo. pour man intérêt réew mi daal moo taxaw réew mi ñëpp ñoo ko bokk euh, wàññi na dund gi pare na pour créer ay emploi wax na si tey situation dëkk bi ak économie bi ni mu ko bàyyi ni mu ko fekke woon wax na si ñu caxat caxatee mbirum suuf si wax na si problème mu suuf si bi yooyu mm-hmm. yëpp wax na si mbay mi napp gi. voilà mag mbay mi napp gi yooyu yëpp wax na si. Mm-hmm. mbay mi tamit la may doon souhaité mooy il faut ñu dakk ay def ay dakk communal. Mm-hmm. pour que wàcc si base bi pour que nit ñi mën a tàmbalee foofu parce que mbay. ci suuf ngay tàmbale jëm si kaw mais doo dem rek si kaw après wàcc suuf parce que ak économique boo gis ku nekk base bi lay tàmbale. ndaw ñi ñu delloo leen ci tool yi fa lañ jóge woon bari ñëw si marché am laay def ay dakk communal bu nekk dugal fa deux milliards. organiser ndaw ñu village bu nekk nga jël fu ñoo xam dañuy xëy liggéey si mm-hmm. bu wàcc nga yóbbu leen autorotation ñooy doon gas ay forage mm-hmm. mbay fa bu mbay jeexee da nga am loo leen dundale danga am loo jaay pour génn say frais mm-hmm. loolu boo ko defee cinq ans li nga bëgg si autosuffisance alimentaire da nga ko mën a am parce que ndaw ñi tamit euh, soxla nañ ko gis nañu coow lu am fële ca marché Sandaga marchand ambulant yi xëccoo bu ñu nekk ak yenn autorité yi tamit ah, coow li moom bari na parce que avant tabaski amoon na Kër Massar amoon na Guédiawaye mhm. am na Colobane am na tey marché Sandaga muy coow loo xamante ni yàgg na fi aussi mhm. ndaw ñi dañoo nekk ay ndaw yoo xamante ni daan seen dool rek moo leen tax a jóg mhm. te amul fu nga ko def parce que nag wax naa ko démb nee naa leen euh, boo demee France tey euh, tour Eiffel ba nga xamante ni maanaam fa la Sénégal ñëpp di dem mm. boo fa dem fekk fa ay marchands ambulants sénégalais yu fay nekk comme que waa France ñoo leen mën a toléré askan mm. nag waa Sénégal mm. mais nag ñu jéem a xool xam ni tamit euh, Sénégal mun ñu koo yore si anarchie aussi mm-hmm. ndax réew dañ koy teg ci yoon bu fekkente ne da ñëw jël say bagage teg ko si kaw fi oto yi war a jaar oto yi duñ jàll te boo ti jàllut circulation bloc économique bi taxaw bu fekkee fi nit ñi war a jaar la boo ko fa tegee nit ñi si oto yi la ñuy jaar mbëkk kenn koo xamante ni dafay dundal fukki nit bu ko oto mbëkkee tey diituma dundal ñooñu suba nga lor kooku kon kenn ku nekk am nga si pas responsabilité maire yi seen responsabilité mooy nañ leen accompagner nit boo ko jëlee fenn mhm. wala nga bëgg faaje dafa am foo ko war a yóbbu ba pare te xam ni aussi tamit ñi nga xamante ne ñooy moom kër yenn yi mhm. euh, du bare bari ci marché Sandaga bi ba ñuy am seen kër yi mhm. autorisation yi am location nekku si woon ay bitik nekku si woon ñoom ñoo ko transformé xam ni xaalis la bëgg lan bëgg lay def ko li nga xamante mooy ay bitik mhm. boo ko defee nag nit boo ñëwee bu la jëndee si yow ba pare bu ko neexee taxaw sa buntu bitik jaay pour am dara naka naa loolu mooy li am mais comme euh, premier ministre waxoon na si fan yi waxtaan naa ak ñoom pour man dana jël ay décisions yoo xamante ni dañu mën a satisfaire li nga xam mooy marsa ambila yi ndax nag réew mu développé mu nekk boo fa demee di jënd dara da ngay def trente kilomètres nga dem jëndi boo fa jógee nga ñibbisiwaat nañu def maanaam ay ay ay ay ay ay oto ay terre wala terre bi wala BRT yoo xamante ne léegi ñu côté Pikine yi ñu def loo xamante ni c'est haute gam trop de commerce nga xamante ni supermarché yu mag lay doon mhm. nga xamante tey jii boo soxlaa tey mhm. da ngay dem foofu nga jënd ndax ñu baree bari tey boo xëyee ñëw ñuy jóge foofu di jaay si fii la ñuy jaay si mhm. mais tey bu ñu fekkoon dañoo ne foofu ñu di leen fekk foofu yaakaar naa su boobaa li am fii du fa am loolu nag responsable état mi ngi si ak mairie na nga ko organiser pour que ñu mën ko def ñu daanelee ak benn polémique bi nga xam ne ni toppoon na leen hôtel bi nga xam ne dal na fa hôtel euh, Azalaï indi na ci ay leeral nee na daal sécurité moo ko wax ne mënul dëkk si këram et tout euh, polémique boobu. waaw xam nga nag moom euh, këram moom appartement la rek. Ah. wax na dëgg nag parce que nag président la république. Mhm. ñun ñoo ko jiital. Mhm. mu yor suñu sécurité. Mhm. yor suñu santé. ak suñu koom-koom parce que loolu lépp ñoo ko jox. wër ñu ko jox def nag ci ay conditions yoo xam ni. dafay am maanaam seeni pour mën a liggéey réew mi parce que des fois fi mu dëkk comme ni nga ko waxee euh, xat na mm-hmm. en tant que président de la République wax dëgg yàlla amul fi kër goo xam ne mën na faa dëkk parce que bokkutoon ci ñi nga xamante ni xëy na amoon nañ benn opportunité wala jigoon na bu mën a am kër goo xamante ni dana am ay piscine am yeneen ak yeneen mm-hmm. te wat nag boo war a ñaari soxna mm-hmm. day xaw a difficile kon moom pour le moment fee mu dëkk mën na fa dëkk palais xëy na dafa am ay réflexion parce que gis nga changement yi fa jot am ak yooyu ñu ngi si mm-hmm. liggéey travaux yi pareegul mm-hmm. trois mois la mu fa defagul palais mënoo ñëw trois mois nga dindi kar yi fa yàqu woon peinturaat sens la mu far sens yëpp loolu moom pour le moment mënu ko la am mm-hmm. kon jàpp naa ne loolu tamit wàññiwul dara bon lu may si wax rek mooy am na si benn kàddu boo xam ne dégg naa mu wax ko en tant que président de la république ci këram noonu neen dañ ko dañ ko jox suuf si mais suuf kan ko kan moo ko jox aussi si yenn anam lañ ko ko joxe loolu tamit xam naa ne bu mu doon moom. Ah, loolu bu muy wax ci déclaration de patrimoine bi la ko waaw ne dañ maa jox suuf si suuf si impôt moo ko jox. mais impôt boobu ko jox si si yenn anam la ko joxe woon. anam yi mu ko joxe woon mooy da doon liggéey impôt xëy ñu jox ko ko comme ni nga xam ne noonu la joxee ñeneen ñi. mais pour ma loolu lépp amul solo daal li am solo rek mooy déclaration bi leeral na ko si muy déclaration patrimoine bi leeral na ko. ñëpp xam na ni waxuma la expert des impôts mais ñi nga xay Sénégal lam daal nga xam te ni ay businessman la li mu déclaré ci ci patrimoine ñun am nañ ko wala ba am lu ko ëpp kon jàpp naa ni kooku li des rek mooy observer est que moom bu génnee bu déclaraatee fan lay toll waaye comme salaire fu lay dugg te salaire bi muy am moom mën naa mën naa fay yaakaar naa ni ñun euh, fukki yoon par weer euh, xëy na bu dee yokkute nit ñi daan mën a xam juróomi ati salaire am ak lim si dund ak yooyu loolu rek laa si wax ni en tout cas gis naa ko si ci loo xamante ni détail yoo xamante ni c'est pas mu naan dan ma koo jox yooyu moo na wax sama kër gi nekk foofu rek bon après li des nag waaye euh, comme moom chaque jour que ni ñu ko yaree ak mi mu doon dundee mooy lu leer la bëgg parce que bëggul wax loon de am polémique moo tax mu wax lu leer pour Sénégal yi mën a xam ni kat kër gi moom terrain dañ koo jox li des nag moo ko leb pour lijjanti pour tabax këram